tey lenn dong moo tax ñu daje fi duñ ko guddal te duñ ko gàttal muy la décision du conseil constitutionnel mais aussi waa DGE seen décision bi ñu jël boo xoolee ba ñu génnee ci élection locale yi am nañu cinq maire plus de six cent conseillers municipaux nga ni gëm sa bopp la grande coalition mënul matal parrainage wala li mu boo déposé ci parrainage baaxul loolu duñ ci guddal li tax duñ ci guddal mooy le président Bougane Gueye Dany ak l'équipe def na li ñu war a def ba montrer aux Sénégalais que ni dañoo def wala dañoo jalgati yoon ci jalgati yoon boobu nag si la jeunesse su gëm sa bopp daje depuis des jour di préparer xool nan la ñu war a mën a def face à cette forfaiture te pare nañu moo tax ñu woo leen tey jël décision informé leen informé leen jël en témoin sénégal yi jël en témoin l'opinion nationale et internationale ci loolu le ministre de l'intérieur dama koy bampuwaat le ministre de l'intérieur laa wax mi nga xamante ni moo nekk en complicité avec DGE la directeur Thiendella ak le gardien de la confusion Macky mi nga xamante ni ñoo def seen complicité ne benn justice moo fi am muy volonté de Macky Sall alors que justice boobu amul looloo tax ñu daje te fan yii ci néew dinañ leen wan ni ñu décidé mooy am te liñ décidé mooy que ni en se basant sur l'article L 149 bi nga xamante ne ministre de l'intérieur bi avec son arrêté moo ko def dinañ wan ni Macky Sall warul bokk ci élection législative bi mais la liste de Benno Bokk Yaakaar aussi warul bokk ci élection législative bi te loolu duñ ci nangu kenn même le président Bougane Gueye Dany bu ñu waxee ni reculer leen duñ ci reculer à partir de dès maintenant suba suba suba di ngeen gis ce que la jeunesse de Gëm Sa Bopp va faire et ñu ngi ciy woo képp ki nga xamante ni patriote nga wala réew mi moo la ñor képp kuy jeune ñu ngi lay woo nga fuyuñu ci combat boobu et on sera dans la dans la rue te yàggatul léegi neeñ leen won ni Macky Sall waxuma la sax mandat bi nga xamante ni moom la ñuy xeex mooy sa candidature pour le troisième mandat boobu dañ ko dépassé mais élection législative yi Macky Sall ak ses complices dinañ ci reculer buñ ci reculer wul boo moytuwul waxuma la li xewoon bi passé les événements de mars ba nga xamante ni dafa dugg ci Bélendem di wër dëkk bi di xam li xew mais bi avion moom lay jël génn réew mi dem te loolu du sëriñ mooñ ci mën a delloo ginnaaw du le président Bougane Gueye mooñ ci mën a delloo ginnaaw du benn leader de l'opposition moom mën a def médiation pour delloo ñu si ginnaaw lu dul Macky Sall reculer wan ni ñu kat li ngeen wax mooy yoon ñëppay bokk ci élection yi wala kenn du bokk ci élection yi surtout la liste de Benno Bokk Yaakaar loolu mooy li nga xamante ni moo ñu yëkkati te amul leneen luñ ciy teg c'est juste ça l'objectif beneen chose bi mooy que ni bu ñu jugee fii tey dinañ defaat démarche ak les les autres jeunes qui foo partie de partis politique def démarche woo leen ñu ñëw accompagner yu ci combat bi parce que combat bi combat ñëpp la combat bi du combat wu gëm sa bopp ba parce que bépp citoyen da nga am droit jël parole danga nga am droit ñu représenter la te yaa war a choisir ki lay représenter bu dee mag i Sall mayuñu loolu nag dañ koy xeex. xeex ko pour la liste de gëm sa bopp mais xeexal aussi les citoyens ndax ñu am seen droit mën a dem voter yi loolu mooy li nga xamante ni moo ñu yëkkati ñun gëm sa bopp te dans les jours à venir d'ici peu de temps ni ngeen gis résultat boobu encore une fois ñuy lancer un appel à toute la jeunesse ñu combattre le gardien de la confusion Macky Sall et le ministre de l'intérieur Antoine Diop loolu lañ amoon lu ñuy wax dañuy bàyyi Mame Bousso mu tënku wasalaam c'est bon hein? c'est maa ngi nuyu ñëpp di nuyu presse sénégalaise bi ici ici présente tey dañoo ñëwoon pour wax leen ni li fi ñuy wax ñëpp sama sama camarade yi duma ci jaaraat mais juste pour vous dire que dégg nañu Macky day dem Sédhiou ci deuxième quinzaine semaine ci deuxième quinzaine mois de juin bi dañ koy xamal ni ko du dafay dem pour glorifier wu ci réalisation yu ñàkk fayda yi mu fa jot a def par rapport ak yi mu leen diggoon lépp dinañ ko wax ne opération tibb tànk ba tey elle en marche président Bougane Gueye Dany dina ko topp comme d'habitude ni mu ko daan toppee fu mu dem gas Bougane dina fa jaar suul ndax lu mu mës a jaar diggee ko ak dëkk bu mu mën a dem surtout Sédhiou bi mu diggee dina fa ñëw lu mu leen dig lu ne bu dee 100 benn la ci def te ni ko defee sax amaana neex ñu fa dëkk deuxième quinzaine bi nag bu taalee otoom dem bugaan taal otoom topp si ay tànkam comme d'habitude dinañ ko xamal ni ko li mu leen diggoon yëpp benn def ko te dinañ ko ko limal benn par benn du la fay dem pour glorifier wu li mu leen diggoon bokk na ci dina leen defal stade municipal kenn mësu koo gis stade municipal Sédhiou du presse bu ko mës a gis amagul dina leen defal state régional ba tey def ko waxoon na dina leen defal zone industrielle amul ne leen defal électrification des zones rural de Sédhiou kenn gisagu ko sama camarade sànq monsieur Dramé lim na ko zone yi nga xam ne amuñu courant Sédhiou bari na benn benn benn bu ma waxoon dina ko def defagu ko kon moom mënul dëkk chaque jour di teg Sénégalais yi ay dof di leen teg ni que moom lu mu wax ni dañ ko war a gëm à l'aveugle mënatul nekk Macky na xam ne moomul réew mi moomu ko baayam moomu ko ni ci amee droit noonu la Sénégalais yi amee droit surtout président Bougane mi nga xam ne tabax na tabax na fi lu nekk sénégalais yi ak pour sénégalais ku nekk liggéey bi jariñ njabootam Macky avant moo nekk président tabaxu fi télécentre kenn liggéey fayeeku kon moom bu manigancé ba jot réew mi dafa war a am ngor gu toll ni bu dem jotee mu dem loolu nag ça met en l'occurrence liñ naan troisième mandat du fi am na ko leer def ko ci boppam Macky Sall moomul nit ñi troisième mandat benn du fi am te bennoo warul bokk ci yi du conseil constitutionnel nee na moom dafa manigancé noonu ba dugal li génnee yeeyu askan bi moo war a génnee bennoo bokk yaakaar gëm sa bopp kenn waxaalee ko ndax lépp c'est des teg nañ seeni wax def lu leen neex ba génnee gëm sa bopp waaw d'accord duñ ci neexal gëm sa bopp du dem waaye dinañ ko wan ni carrément nu serons présents ci élection yi nii te loolu day leer moom na ko def ci boppam Macky saal moomul nit ñi moomu ko bàyyam moomul réew mi encore une fois on vous remercie